bismillahi irrahmaani irrahim asalaamaaleykum wa barakaatu mbokk yi tey mooy guddig ñaar fukkiyal ak juróom benn ci koor gi naafile tey gi fukki rakkaa la fukki rakkaa muy juróomi salmal rakkaa bu ne faatixa benn yoon alxaariatu benn yoon xul huwallaahu juróomi yoon ma baamu ko juróom benni rakka astaghfirullah fukki rakka laa bëgg a fukki rakka tey fukki rakka la rakka bu ne alxaariatu benn yoon xul huwallaahu ahadun juróomi yoon su noppee nag mu jéggalu yàlla lu mu man jéggalu yàlla mooy astaghfirullah mu def ko lim bu man rek incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu